bismillaahi rahmaani rahiim mbokk yi tey mooy sunu jotaayu fanweer ak benn ci alhamziyatu lil imaami albuusayri rahimahullahu taala wa radiya anhu alimaamu albuusayri li muy tëje qasidaam gi moo di tagg waa kër yonent bi alayhim salaatu wa salaam mooy ahlul bayt ñoom ñi nga xam ne yàlla dafa leen a jagleel ay ngëneel ak i may yoo xam ne kenn fekku leen ca waaye tiis ya nga xam ne jotoon na leen a dal mu koy junju fii di ko mettitlu lu mel ne Karbala ak lu ko ak lu ko nuru waaye da di def tawasul ñaan yàlla ci seen ci seen barke ak barke yi lenn ci mbaax mbaaxi yonent bi sallallahu alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama alimamu albuusayri ne yaa abal qaasimi yaa abal qaasimi alladi dimnu aqsaami alayhi madxun lahu wa sanaau am nañuy bind dim dimna yaa abal xaasim yow bàyyib yow bàyyu xaasim yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci ay dàkkantalam loolu arab day def boo amee doom léegi bu lay woo rek danan bàyyu diw léeg-léeg wala fi danañ ko def wala fi danañ ko ndey baayam wala yu ko nuru li mu wax la mooy yow yonante bi sallallahu alayhi wasallam allasi mi nga xam ne dimnu aqsaami lu ñu làmboo samaw ngiñ alayhi ci moom madxun moo di aw tagg lëxoo ñeel ko wasanaun te di aw tagg rek mu ne yow yoront bi yàlla bi man de xam naa ne tagg wii ma lay tagg ak di la ci wax say baax baax yala yàlla defal ak sa barke bi la yàlla defal xam naa ne su ma ci giñee ne may yàlla dina ma ci fajal samay aajo xam naa sama ngiñ la moom du teggiku sama ngiñ loolee xam naa du teggiku li làmboo sama ngiñ daal te moo di def tawasul ci say baax baax ak say jikko yu rafet yàlla fajal ma sama aajo waaye loolu maa ngi koy defee ci tagg gu ma lay tagg loola de xam naa sama ngiñ loolee ngiñ lu rafet lay loon bil ulumi maa ngi ñaan ci barkeb xam-xam ya allati xam-xam ya nga xam ne alayka wàcc na ci yow min minallahi bàyyi koo ci yàlla nga xam ne laha na xam-xam yooye ak fit bila kaatibin ci lu benn aji bind mu maa ngi ñaan yàlla ci teddaayu xam-xam bi nga xam ne moo jóge ci yàlla yàlla wàcce ko ci yow wa allamaka ma lam takun taalam wa kaana fadlullahi alayka azima yàlla moo ko xamal xam-xam boo xam ne jaaralewu ko ci kenn xam-xam boo xam ne jaaralewu ko ci kenn yàlla rek moo ko xamal xam-xam ba ca yàlla la jóge ñëw ci moom yonante bi alayhi salaatu wasalaam amul kenn ku jaar ci diggante bi maanaam bu yàlla masaani yónnee jibril jibril ñëw di ko wax ay information amut koo xam ne day ñëw di bindal yonante bi bu noppee yonante bi di ko jàngee ca kooka déedéet déedéet loolu amut mu ne maa ngi ñaan ci barkeb xam-xam yooyee ba tey maa ngi ñaan wa masiri soba ak doxub ngelawal sabaa shahran aw weer bi nasrika ci sa ndimbal fakka na sabaa dafa mel ne ngelawal sabaa la dayka fi yow ruxaa un kem ngelawal suleymaan la ruxaa an ay su asaaba ko ngay jàng ci alxuraan suleymaan yàlla da ko defaloon ngelaw wali suleymaana riixa guduwuha shahr wa rawaaxuha shahr yàlla da ko defaloon ngelaw loo xam ne da ko koo tàggatal bokkoon na ci ay kiimaanam mu ne ko yonent beet yàlla daf koo dimbalee noonu yu mu war a xeexal bu eh, yàlla dana am ngelaw loo xam ne da koy yabal maanaam lu toll ak doxub weer am na benn xadis mu ne yàlla daf may dimbale ci ngelaw loo xam ne day ñëw dugg ci xolu noon yi def ci ñoom ak tiitaange nga xam ne kon buñ dajeek ñoom di xeex rek day tax xeex bi gën a jàppandi day day tax xeex bi daanaka yàlla day def participation am saxaaba yi doo ko ñëw doo ko mottali li ci des nag loolu lay wax rek mu ne barke boobu yàlla defaloon la ci ngelaw lu toll ne doxub weer ngelaw la jaar fa tiital leen ba seeni xol tiit kala dimbali woon ndimbal loolee eh, maa ngi lay ñaan ci barkeb tawféex joojee yàlla defaloon la da ko tuddee ngelawal saba ndax arab yi dañuy tagg xeeti ngelaw yi rek ba tey maa ngi dagaan wa aliyin ak ci sayidna aliyun ibnu abi talibin alayhi salaam lamma tafalta ba nga taflee bi ay nay bi aynayhi ci yaari bëtam ya wa te kum ci ñoom ñaar am na ñuy bind wa kiltaahuma kum ci ñoom ñaar maan mboole seen ñoom ñaari bët ya ramda u aji wànnen la neen maa ngi ñaanit ci barkeb kiimaan bii nga defaloon Seydina Aliyun euh, xareb xaybar yonent bi nga xam ne dafa dafa gaw yéefar yi waaye nag yéefar dañoo tëju dañoo tëju ba euh, yonent bi mënta bëtt baaras bi mën leen a fekki ku mu jox drapeau bi rek boo demee ñëwaat ne ah wax dëgg lott naa ci ubbi ko yonent bi ne bu subaa daal dinaa jox drapeau bi jàmbaar joo xam ne ku sopp yàlla la ak bi waaye yàlla ak yàlla ak yonent bi sopp nañ ko moom insha allah dana ubbi tata ji euh, bu mu xëyee suba nag mu ne woo leen ma Seydina Aliyun bañ ko wooyee mu ñëw waaye yonent bi gis ne ndekete dafa wànneen ba bët yi neew yi waaye yonent bi daa tifli ci bët yi rek bët yi daa di wér pelek set wicc leer nañ ñi ba muy gis sax loo xam ne mën naa am daawu ko gis yonent bi jox ko ngànnaay li jox ko drapeau bi nekk demal nga ubbi tata ji ci carton yàlla Sayyidna Ali dem ubbi ko ñu jëlee ca ngañaay loo xam ne kenn mësu ko gis yéefar bu mag ba bu dëgër bopp ba Sayyidna Ali léewatoog moom gañe ko gañe bu leer nañ te fekk nag lu jiitu lool kenn ñi muutoon ak léewatoog moom kiimaan boobee nga defaloon moom lay dagaan ne ko maa ngi la ciy ñaan li ma lay waaj ñaan la muy waaj a ñaan nag dana ñëw ci kanam faxadaa mu daal di xëy moom saydna aliyun naadiran di aji xoole bi ay nay ci ñaari bëti am ngoob picc la moo xam dañu daa mën a gis lool a gis lool fii xasaatin ci xare boo xam ne al uqaabu uqaab liwaa ko ñeel mais Seydina Aliou daal ba mu xëyee nag ba ko yonante bi defalee loola mu mujj faxa daa day firi xëy waaye li mu jublu rek mooy mu mujj rek nee na Seydina Ali daa mujj bëtam leer nañ ñi mel ne picc moom yi nga xam ne yàlla da koo defal tawfiq nee ñu lu sori lool mën na koo gis-gis bu leer nañ naññi ne ginnaaw bi ci yonante bi ñaanee noonu la jaari bëtam mel nee loolu ab xare la boo xam ne drapeau bañ ko takkaloon ma nga tuddoon uqaab ne ab drapeau la boo xam ne ci lenn ci yëre sayyidatuna Aïshatu la ko yonante bi defaree woon jox ko ko yonante bi dara yor ay ay drapeau keroog drapeau la yoroon ci ab xare boo xam ne al uqaabu drapeau wala boog al uqaabu uqaab li waa oon ab drapeau la woon lëxoo lëxaa ñeel xare ba ba tey maa ngi lay ñaan wa bi rayxaana tey ni ci barkeb sa ñaari sëdii rayxaan sa ñaari sëdii euh, tedd ba mel ne xetuk parfum bu gën a neex yonent bi danoon ñaari sëtami euh, dañoo mel ne ci moom parfum ba gën a neex maanaam dañ koy bégloo tey boo xuma seen gëttu ñoom ñaar min mi ngi tukkee ci yow allazi ñaar ña nga xamee ne day taxaw bi maana allazayni aw daat huma dénk dénk nañ leen azzahrau naa fatimatu azzahra mu ne maa ngi ñaan ci barkeb sa ñaari sët yi muy alxasan ak alxuseynu ñoom nag ci yow lañ bàyyi ko ndax ñu ngi bàyyi ko ci fatima ci fatima ci yow la bàyyi ko bi dana woon aw dogeet la u bàyyi koo man kon ñoom ñii aw dogeet lañu bàyyi koo ci ci fatimatu kon ñoom ci yonent bi lañu ci yonent bi lañu bokk moo dama sa ñaari sët yooyu mooy ñi nga xamee ne ñi ngi bàyyi ko ci soxna su baax sooyee di sayyidat sayyidatuna fatimatu kunta nekkoon nga yow yonant bi tu tuwihimaa daan leen tàpp ilayka jëm ci yow kama aawat naka muy tàppe minel xatti ci mbind ma aliyaa u yaaga muqtatayha ñaari tombam ya mu ne ko sa ñaari sa diyo yi nga leen a fonkoon lool daal leen jël daal leen taf ci sa bopp ni nga xamee ne yaa dégg nga noonu lay ëmbe maanaam noonu lay eh, amee ñaari tomb yu koy féere suuf di tafu ca kaw maanaam yaa ñaari tomb yu nekk suuf dégg nga xam ne dañ koy sës rikk du nekk benn tomb ndax bu nekkoon benn day nekk ak baa waaye yaa lay doon ñaari tomb yooyee nag lay joxe misaal moom daa mën a way nga xam ne day mel ay seex lanu daal di ñëw nag daal di tafu ci tafu ci eh, jimmi yaa gi sës ko rek li mu bëgg a wax rek mooy donte alxasan ak du duñu ay seex nag moom su réewuñ ak juddu lool waaye du ñu ay seex alxasan moom ak yonent bi daleen leen daa taf ci boppam ni yaagi wala taa ni muy tafe ni muy uufe ay tombam noonu loolu rek la bëgg a wax ci ak jegeñal dañ daan yonante bi da daan julli sax ñuy war ci kawam di war ci kaw ak doxam lu tedd la loolu ñu koy def te teewul yonante bi daawul siggi waaye da leen daa yëkkati ndànk wala mu bàyyi bañ dem muy doo ko jóg min shahidayni ci ñaari way shahid nga xam ne laysa yun laysa yun siyani du ma fàtteloo ab toff barab boobe di tof musaa bay hima seen ñaari musiba ya wala karbala aw du caaganu karbala nee na sa ñaari sëriñ yi ñoom ñëpp ay shahid lañu dañoo dañoo sahid dañoo daanu ci toolu ci toolu xare ku mel ne xasan nga xam ne nee ñu dañ koo posone ku mel ne alxuseynu nga xam ne moom nañ koo euh, def ca Karbala jëf ju ñaaw joojee moom jullit ñëpp daanaka xam nañ ko mu ne ko ñaari way sahid yooyu di sa ñaari sër yooyu man day musiba ma leen dal xel xel xalaatut mukk ma di ko fàtte ah la leen dal wala boog al al al xuseynu nga xam ne ca toff ak al Karbala toff ak Karbala benn barab rek la dañu ne Karbala mooy jëmmi barab bu mag bi toff nag mooy jëmmi barab bi ñu ko faatee dëgg-dëgg maa ne lépp benn la rek mais mu nga mel ne nga ne ab quartier la hmm, ab quartier nga xam ne day yaatu léegi nag barab bañ ko ca raaye nag ruq boobee ñu ne barabum nàngam la maaraa sàmmantewut ak maaraa sàmmut fiihima ci ñoom ñaar zimaamaka sa wëllëre yow yonant bi mar usun faaxel jaa ngi noonu ku ñu yilif waxad xaana te mbir moom war na aadaka sabdal ar ruasaa kilifa ya nee na kilifa yi nga xam ne ñoo def loola ñoo ko jiite woon doon joxe ndigal li ak ñan doon jox ndigal li ñuy def jëf ju ñaaw joojee amu kenn ku sàmmanteeg sa wëllëre yow yonante bi dafa mel daal bi ngay dund da mel ñooñu ay naaféq lañ bi ngay dund ñu nekk di la jege di wane na dañoo ànd ak yow bi nga demee ba jóge fi am ci ñoom ñoo xam ne ay ñoo yilif nit ñi di leen jox ndigal ba nit ñi def musiba mu rëy moomee nee na ñooñu de dañ laa wor sa muñ sa kóllëre mukk ab abdalu wotte nañ al wudda cofeel ga wala xafidata ak sàmm ak sàmm gañ leen waroon a sàmm mooy sàmm seen mer fil xurbaa ca jege ga wa abdat te wotti wala boog wa abdat wa abdat te feeñal an u naafiqa dibaabaha mbëttam ya nee na ñooñu day defuñ lañ war a def day mel ne lañ waroon a def mooy sopp leen bëgg leen ak lépp lu leen naqari ñu dindil leen ko ci sababu jege gi ñu la jege lool moo leen waroon waaye loolu ñoom defuñu ko dañ faa wootee ak noonoo ak ak mbañeel ak di xeex ak ñoom nee na noonu nga xam ne mbëtt noonu lay def naafiqa naafiqa nee ñu mooy euh, pa maanaam paxum tëj fël dañuy wax ne mbëtt awal am na ñu ne xeetu yaram boox la lu nuroog mbëtt waaye du mbëtt bu fekkee ne day dugg ci am pax day wut ñaari bunt day wut ñaari bunt benn bunt bi nag da koy tabax ba mel ne amut amut fu mu jaar waaye moom xam na ko xam na ne fii su su fi su ko félee jàll rek am pax moo fa nekk fekk moom gas na ko ba préparé ko waaw mi ngi mel ne ki dëkk ci ak kër daal ab kaaw ci suuf boo xam ne am na beneen buntu sarale nga xam ko attaqué woon rek day daal dugg ñu yaakaar ne kii kat mi ngi ci kër gi nañ ko seet ndekete am na ak tëjfal gum gum mën a jaare ba dem neen day def loola noonu waa iraq ware woon say Seydina Xuseynu mii maanaam bañ ko woowee ne ko da nga bëgg damaa bëgg ñu dañoo bëgg nga ñëw ñu jaayanteek yow bañ a topp buur yi naa naafeq yi fi nekk ndax booba buur yi xaw a doy waar ñoo fi nekkoon jiite jullit ñi ci ci force waaye ba mu ñëwee ñoom dañoo dem ba tiit ragal defe ne buur bi da leen di attaqué au lieu ñu toog défendre Xuseynu ñoom ñëpp dañoo daw noonu ñu dawee nag noonu lay misaale ne noonu mbëtt mi wala yar boox bi di def boo gasee am pax bañ na fii la dëkk ndekete yoo am na beneen pax moo xam ne paxum sarale la bu ko amee dara lu ko ragal rek day daal bëkk foofa foofa daal di fattu foofa daal di toj rek mu daal di jàll jaar feneen ngir mën a rëcc nee na keroog ñoom noonu lañ ko def dañ koo war waxasat woowu na minhum ci ñoom xuluubun ay xol xalaa man ci ñoo xam ne bakkat jooy na al ardu suuf faqdahum séenum ñàkk wa sama asamaan nee na ñoo woo xol fekk sangu yi tedd yi nga xam ne keroog bañ génnee àdduna asamaan ak suuf yëpp da leen doon jooy mboolem nit ku baax da leen doon jooy ñoom ñu mën a am xol yu wow ba di leen def jëf yu ñaaw jëñ leen def maanaam ku ñu war a teral kooka ku ko mën a def ab ku ko mën a jaay ku ko mën a def yenn jëf yu ñaaw yi kooka sa xol nam wobe jéggi na dayoo fabkihim na nga leen jooy mastataata loo man inna xalilan naka aji néew fi azimin ci aji rëy minal musaabi ci musiba albukaaw mooy jooye rek nee na kon nag sangu yu tedd yi jëf yu ñaaw ji ñu leen def loo ko mën a jooyt ak niñ jege yonante bi booy boo nga jooy ko ndax dëgg la musiba moom bu rëyee ba rëy lu mu rëy rëy rëy bu la dalee tamit mënoo ca te amoo ca pexe nee na nag lu néew la nga ca mën a nga jooy na moom al imaamul busayri kulla yawmin bis bu nekk wala ba kullu bu nekk wa kullu ardin ak sépp suuf li kar bi ñeen sama njàqare minhum ci ñoom ñii karbala karbala la wa ashura ak wa na man day bis bu nekk damay jàq day mel ni karbala la ci man suuf su ma taxawit wala boog bis bu nekk day mel ne ashura suuf su nekk day mel ne suufu Karbala la maanaam bis bu set dama leen di xalaat di xool jëf ju ñaaw dañ leen defoon moo tax du ma mës a jóg ci njàqare mukk ahlu bayti nabi yi yéen waa kër yonent bi yéen ahlul bayt inna fuwaadi naka sama xol laysa yuslihi du ko miisloo de ankum walif leen at tasaau dëfal ga xayra an nii lu dul naka man nag fa wattu joyal naa amri sama mbir ilallaahi jëm ci yàlla wa tafwidiya te sama jooyal al umore mbir ya baraawun ak ak dañtalu la nee na yéen waa kër yonante bi sallallahu alayhi sama xol bii du leen mas a fàtte jëf ju ñaaw liñ leen def toroxal liñ leen doon jéema a toroxal loola kenn mënuma cee defal waaye nag comme mënuma ci dara moo tax mbir mépp bàyyee naa ko yàlla te bàyyee gi ma bàyyee gi ma jël mbiri bàyyee ko yàlla loola kat day won rek ne man dama caa mënul dara ma ëw ma menn pexe mu ma def moo tax foofu laa mucc damaa dañtalu bàyyee mbiri yàlla rek barixaana bis musi in buy aji ñaaw bi karbala ci karbala xafafat woyofal na xafafat woyofal na baadu wala ba xafafat woyofal na azawraau bagdaad baada wisrihi ca lenn ca diis diisam ya ndeysaan na jëf ju ñaaw joojee ñu defoon ci karbala nee na ginnaaw bi nag noon ya defoon loola faagaagal waa kër yonante bi nee na keroog nañ leen def ca Bagdad ñoom it dañ leen a attaqué rey leen ay rey yu ñaaw nee na loolu de tax na mu xaw a oyof sax loolu fëju ko ñu doon ñu doon rey Xuseyn ak waa kër yonante bi alayhim salaatu wasalaam nee na ñooña mujj nañ ña doon dund mujj nañu toppaat leen ba rey leen ñoom it ay rey yu ñaawa ñaaw waaye de nee na loolu mënu koo fay de waaye mën na koo oyofal rek ruba yawmin eh, bi karbala musibin bis bu ñaaw boobee ñu defoon ca karbala la ko oyofal nag mooy zawraa u euh, baada wisrihi moo moo oyofal lenn ci ay diis diisam lañ ca waroon a jooy dëgg dëgg dëgg ba mu war a metti waaye buñ nee noon yi def lii kat gannaaw ba jàppoon nañ leen ba rey leen reyu ñaaw loola dana tax dana dëfal ab xool tuuti ñu ne tane na walla aadi noon ya ka anna noon ya defoon loola xuseynu ka na kulla tarihin dafa mel ne képp ku ñu nërmeel minhum ci ñoom a aziqu moo di mbuus ga xul la boo xam ne fecceef na minu ci moom alwika u takkum la nee na boo gisee keroog noon ya doon rey Xuseenu ñoom it ba ñu leen jàppee rey yooyu ñu leen doon rey di seen deret ya muy tuuru dafa mel ne mbuus ku def dara mbuus ku def ndox wala diw nga jekki rek ne ca tara ab ab ab lancet wala nga jëm ci paaka la nekk nañ naan bas tuuru ne ko rek rey noonu lañ doon doon reyee di leen jàpp di leen rey naan ñii ñoo ñoo ñoo doon rey waa kër yonante bi sallallahu alayhi wa sallam aalu bayti nabi yéen waa kër yonante bi tibtum teey ngeen fa taaba ta tey almadoxu tag wa lii di ma ñeel fiikum ci yéen wa taaba tey arasa u marsiya ba ne ne yéen waa kër yonante bi yéen day yéen a baax te tedd moo tax tagg leen yomb ma tagg leen yomb ma ak it di leen di leen marsiyaal marsiya mooy tagg woo xam ne kooka daa faatu ba noppi bu dee madxe moom mooy kuy dund euh, dégg nga bu dee marsiya nag mooy koo xam ne moom dafa génn àdduna ñu di ko tagg di nettali ay baax baaxam nee na loolu moom daf may neex te dafa may yomb te loola kat ci yéen rek la bàyyi ko ndax yéen yéen a tedd yéen a neex a tagg ana man daal xasaanum madaxikum may xasaanum seenu tagg xasaan moo daa tagg yonante bi nee na xasaan mi fekkoon yonante bi moom yonante bi la daan tagg man nag fekkuma fi yonante bi yéen laa dajal kon man maay nekk seenu géwél maa leen tagg maay nekk xasaan ci yéen fa ida nuxtu bu ma yëkkatee aleykum ci yéen maanaam bu ma jooyee rek fa inni fa inna nii naka ma alxansaa u maay ndaw sa tudd xansaa ba muy jooy mbokkam moomee di saxara nee na su fekkee maa ngi wonk di yëkkat di jooy ngir lañ leen defoon nee na su boobaa nag xansaa u laay doon su ma leen taggee dama remplacer xasaan su ma leen jooyee mooy déjjatu déjjatu mooy jooy ku faatu noonu ñuy def xeetu yuux yooyu ñu yuuxu neen lool bu ma ko defee nag damay roy rek xansaa u ba mbokkam ma saxar nga daa sore woon ci moom ba mu faatoo jooy yu métti yam ko doon jooy ak taalif yu rafet yam ko doon taalif maanaam booy jàng téere yi eh, kii da nga koy daal di da nga koy daal di gis wallahu alam